nekkul luy neex kenn parce que bon ku nekk ci sa liggéey yaakaar nga ni euh, ci ni mu gënee lañ ko war a mën a defee ndax euh, médecin bi su sañoon kenn du jël bistour yi ne da ngay euh, xotti lenn te fekk ne waroo xotti loolu piqûre nga waroon jëfandikoo ñun itam lu ñu sañoon mooy su suñuy joxe xibaar muy xibaar boo xam ne mooy li gën muy xibaar bu dëgg bu wóor maanaam faire un travail journalistique simplement pas faire plus ni moins mais faire un travail journalistique yenn nag day nekk loo xam ne nit ñi dinañu am loo xam ne dañ ko ciy dugal ci dul bokk ñeneen ñi itam mettit boo xam ne dinañ ko ci bañ a dugal dinañ ko ci dugal te yooyu yëpp dafay nekk loo xam ne day andi ay jafe moom la ñuy seetlu de plus en plus parce que quand l'émotion parle rek yenn saa yi la raison se tait la raison se tait yenn saa tamit affaire day dem dans tous les sens ñun journaliste lu ñu war mooy fee yaakaar naa ni képp koo xam ne jaar nga ci école journal dañ la ne la les faits sont sacrés mhm. commentaire est commentaire bi nag da ngay xaar ba fee weesu nga def sa commentaire mais munoo nekk ti wax na da ngay wax sur les après nga bëgg dugal sa commentaire ki lay teewlu du xamante lan mooy dëgg bi lan moo lan moo amul jaxasaw boobu noonu yenn saa yi mooy am ci genre yi moom mooy indi jafe-jafe sur le terrain yenn saa yi dama koy wax ne depuis deux mille depuis deux mille vingt et ba léegi on a des journalistes WhatsApp euh, le clan des ça chauffe A. le clan de sa chauffe A ñoom ñoo ñu gën a sonal parce que dañuy tourner rek ne ça chauffe A non diw rey na niw daj rey nañ fi papay jàmbur alors que deew nijaayam feebaroon depuis fort longtemps génn àdduna ray nañ fi pas plus tard qu'hier ñu ngi wax benn homme de tenue mu ngi manipuler son arme mhm. et les premières informations lan lañ lay wax dañ lay wax waaw moom alors qu'il n'est pas décédé il était à l'hôpital nañu daa nee nañu daa dóor bal fetal ci boppam. alors que ne poli waaw policier euh, bon pas policier même pas un policier c'est un gendarme gendarme su demee bay manipuler armam xam na nu mu koy manipuler ba musiba suy. xanaa du xool bay jël télé pistolet di ko teg fii nii di wax ne da nga koy manipuler ci tànk daal ça donc ce sont des choses yoo xam ne ñun waruñu bàyyi journal dafa am fooy source information dañ la wax ne la source yi mën na nekk nit source yi mën na nekk ay archives source yi mën na nekk ay documents yoo xam ne da gis nga jël ko mais source mënul nekk réseaux sociaux source mënul nekk réseaux sociaux je pense que nit day ñëw bind dara sur les réseaux sociaux nga yow nga ni je vais dans l'instantanéité parce que dañu course au scoop man maa njëkk wax 7TV ne man maa njëkk joxe information ko Macky Sall du bokk 2024 euh, E-Media ne man maa njëkk joxe xibaar ne Ousmane Sonko euh, day bokk 2024 ainsi de suite ainsi de suite course boobu moom mooy yàq liggéey bi xam ne moom lañ ko te yi dafa am loo xam ne dañ ko ko ko ko jagleel dañ ni rajo mhm. moom mooy presse à dafay yox tàng lay nekk à chaud mais à chaud bi ça signifie pas qu'on fait pas le recoupement traitement journalistique dafa am lu mu war maanaam triangle la mhm. dañ lay wax na la soo jotee xibaar bu ko mhm. nga recoupé ba paax nga doogaat def traitement ndax traitement da ci am mhm. sal traitement bi ngay xamee lan moo war a mën a jàll ak lan moo war a mën a jàll ndax du lépp la ñuy wax itam am na loo xam ne soo ko waxee mën nga taalum réew est-ce que loolu jar naa wax moo tax yenn saa yi dafa la soo jotee xibaar tegal ci kaw tur bi sa après nag di nga xool ndax loolu war naa génn wala warut a warut a génn vrai am na yenn situation xam ne c'est de l'information mënoo pris Sénégalais bi ne ko déet du la jox xibaar bi mais am na peut-être noo koy joxe dinañ ma jot information de la meilleure des manières